mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla di dimbandiku ci moom di sàkku njëggal ci moom di tuub suñuy bàkkaar ci moom ñu ngi muslu ci yàlla ci suñu ayu bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi tegu ci njub na la wóor ne yàlla képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci jënkute dara wóor na yàlla moo la bàyyi ci kamu mu ngi seede ci dëggal ne amul benn buur gu dul yàlla moom rek la amul kenn ku mu bokkal nguuram ci itam ñu ngi seede ne sayiduna muhammad jaamu yàlla la te ndawam la ñu ngi julli ci yonent bi dipilih dari sahabat ingat Dilini pinggir waktu Imam Sulu Muji istuwaru Sayyiduna Syarif Alaihi Salam Dilini tiada Syarif Dilini berkawasan Mudian yang sebuah hamil Yang memenuhi janggal istuain si Al-Quran Sahih benar Mana wala fi diwas Suhaib Sahih Dikiralah Yang dikiralah Bunga semen ini Mungkin dia anak Yang dikiralah Musa Jamunah nekkul itam gorom ndax moo ko mayoon soxna Suaybu ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi ñu bari foog nañu loolu wante yonent yàlla Suaybu moo ko ëpp at ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junniy ak yu manqué juróom fukk waaye Shuayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu ñetti junniy at ci li histoire bind waaye loolu nag xëy na jaaxal waaye yàlla mi nga xamante ne tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko te ay kéemtaanam ay kéemtaanam bare noonu. في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسدر ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يتروم وأمه ميكائيل ابنة لوط ñoo borom xam-xam yi werante nañu ci askanu Shuayb soo demee ci tawreet téere bi wàccoon ci sayidna Moussa alayhi salaam wax nañu ne Shuayb ku ñuy wax Safwaan moo ko jur Safwaan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur Ayfa ku ñuy wax Naabit moo ko jur Naabit ku ñuy wax Madiana ko jur Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur kon ba tey ngeen gis ne yonent bu jël suñu askanam dana dem ba téere ji ci suñu Ibrahim looloo taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maanaam bayu yonent yi kon ndeke Ibrahim maamam la woon loolu lañu fekk ci téere boobu ñu wax wala ci juif yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon ñoom seen histoire loolu la indi waaye ismaïl bi ñuy wax Muhammad ibn Ishaq nee na ku ñuy wax Mikail moo ko jur Mikail Yasjur moo ko jur Yasjur Madiana moo ko jur Madiana Ibrahima moo ko jur ñu Shuayb nee na turam ci langu suryaaniya ñu ngi koy wax Yathrib yaayam mu ngi tuddoon Mikayil Mikayil mii nag wax nañ ne Lóot moo ko jur te Lóot mooy itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yónne ci xeet ba nga xamante ni dañoo dañoo na takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor dafa takk ay jabar ci gàttal wala ci tënk wala boog ci maana bi gën a leer yonent boo xamante dañu ko yónni woon ci xeet boo xamante ak ngóor jigéen dafa siiwoon ci ñoom nit moomu moo di maamu Shuayb ba tey ndax Shuayb Loot moo jur yaay ñu ngi xaay bu sirmaxa la woon waaw li ko yonent amoon ni ci ku sirmaxa ñu ngi xaay bu sirmaxa la woon dina ndax boo boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoire da nga gis aw nitam di wax moom naan ko inni la naraka fii naa bàyyi fa naan ko yaa ngi wax di sonal sa te nekkuloo lu dul say max bu doy di ci suñu buur kon loolu ngay wane ne Shuayb bu mi seen max la woon sëriñ bu ñu wax ci cadre wax na ne ba'athahu llahu ila ummatayn yàlla yebaloon na Shuayb bu mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu Madina ak asxaabul ayka waaw kon gis ngeen ni yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yebaloon waaye moom ñu ko yebal ci ñaari xeet yonent bi sallallahu ko yebal ci bu wax ak ñaari xeet ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal ma ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bii di Shuayb mu ne wa ilaa midyana axaahum Shuayba moom ci dëkk bi nga xamante ni fa la dëkk ñu koy wax Midyana dañu ne dañu ko tuddee ci tabax dëkk bi ci ko sànc moom tuddee dëkk bi mu di Midyana doom la woon ci suñu Ibrahim ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaayil moo féete woon Makka yaayam moo di Hajar ñoom ñoo féete woon Makka ñoo ko sànc ñi féete woon Palestine wala ci ardu Kanaan moo di Saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di Isxaaqa ak Madyana Madyana nag dem sànc ab dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla wa ilaa madyana moom yonente bi sallallahu alayhi wa sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madyana ndax amoon na fa sam nootoon nga yonent sa mbokku yonent bu ñuy wax Shuayb daal di dugg nag ci soxlaam di ko leeral ngir diggante Midyana dëkk boobu ñuy wax Midyana ak dëkk bari ñuy wax Égypte te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom-ñetti fan la kon xaw nañ ci tuuti ñu ne yonent yàlla Shuayb kenn mën ci tudd histoire am te doo laal tuuti ci Seydina Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam rayee wécc ci kër ba Firawun di ko wut rey ko dafa daw di dem ci dëkk bi ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax ki ñuy wax Shuayb Shuayb bi daf ne ko najaw te minal qawmi zalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ne ay koccoor lañu ay tooñkat lañu kon dëkk yonent yàlla Shuayb boobu wane na ne Shuayb kilifa la kilifa la fa woon nga xamante itam donte am na ñu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon Yahudi ahlu Madinah at ashabul Aikat nagtisar kung yung iswaran mga surat al-Araf at surat Uhud at surat Al-Shara sayo niya yan ang buti na kundi na istuwaro kini yan ñi aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali wal mawazin ñeneen nit ñi ñu ko woon nag nee na ay yéefeer la ñu woon yéefeer yi nga xamante ni dañu ay agresseur yéefar yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc te ni ñu daan nattee ak ni ñu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag ñeneen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di seet lu neex danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni jaw nañu xetteerlu nañu nanguwuñoo sant yàlla